joindre un peu Sophie par rapport ak ki nga xam ne dafa nekk ku soxla xam nga dëkk bi moom boo fi feebaree des fois te te say mbokk juguñu ñi nga xam aussi jóg day xaw a metti 280 millions c'est pas rien et c'est en train de de passer ci internet bi donc ni ci jëpp jàpp pas ñu mën rek mais ñu mënul sax ku nekk sa téeméer sa ñaari téeméer daf ciy baax donc nañ ci jàpp pourquoi pas élever chaque semaine bu dee téeméer nga am nga dóor ko ci numéro yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi koy joxe ci euh, réseaux sociaux yi koy ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla fëgg boppam papa Euh, di profito rek ci nouvelle an bi di souhaiter di la souhaiter une très bonne année 2021 di ñaanal sénégalais yi euh, ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel émission bi wax naa keroog dama koy waxaat tey mm-hmm. c'est pas évident émission guddi te ñoom dañ koy seetaan à tout moment ñi ngi ak ñun donc dañ leen di gërëm di leen bëggee bu baax a baax di remercier ñëpp ñi nga xam ne dañuy wuy si mm-hmm. buñ leen woowee année bi yàlla nekk année bu neex incha allah yàlla yàlla def jàmm ñi nga xam ne dañoo feebar yàlla euh, def ba seen wér yaram ñu retrouver ko ñu nekk ci ay tolof tolof parce que tolof tolof yu bëri na mën naa nekk ñàkkum xaalis mën naa nekk ñàkkum santé mm. mais képp koo xam ne yaa ngi ci ay diggante rek yàlla na ko yàlla saafara di la ñaanal bàyyi di la baalu ak encore une fois ñu bàyyi la nga wax ñu tey fan la ñuy dugg waaw yow da ngaa baax dama lay ñëwoon ko ndax euh, am loo xam ne lu xaw a jafe la ndax jamono ngi ñëw xam naa ci suuf la may fekk dina ne ay daan na toog góor gi nag dafa daan toog góor gi mbay ngoone de da daan toog ak moom ndax ñu bari doon toog volontairement di demander pour toog ak man di demander invitation pour ñëw jàkkaarloo góor gi toog ak man waaw ils ont intérêt ndax dañ ko bëgg archive la ci ñoom day figurer ci annales yi ëllëg suñ demee ba mu naaj guddi gisatuma dina ne waaw waaw mais day am day dafay am dafay am ëllëg su ma gisatul première émission comme ça ëllëg su ma gisatul day dem ba taxaw daal ne sama góor ga ndeysaan ñu naa ah wax dëgg yàlla de ñam na ci keppaaru góor gi Père Mbaye Ngoné Fall waaw loolu dara yàlla yéex yàlla defal jàmm da ngay nangu da ngay nangu baax bu a baax waaw waaw bu ñu ñemee euh, la yàgg na mais bu ñu ñemee rek yàlla ak yow moo tax parce que lu bëri yaa ngi koy def si ñun ah, donc ñu ngi lay ñaanal bu mm-hmm. yàlla defal jàmm yàlla na metti nga bëri nga histoire walaay doo ay mais mais nitu kese la nitu kese la <laughs> aw may ngoone lu mu la mën a def boo ko meree Sophie mën na ma seede boo ko meree boo ñibbee da lay def ay aw ah. da da nga da ngay mer sax boo leen wàccee mu wax leneen donc nekkul nit ki <laughs> gaañ donc ñu la nga dund nga fekkee lu bëri bëri bëri bëri émission bi ñu koy defandoo di ko defandoo yàlla mën na ko yàlla def incha allah yàlla boo sax feebar tëdd sax yàlla yàlla <laughs> yàlla bu mu am soo duggee ca brigade gendarmerie bu Thiaroye ba nga laaj leen ne kii nitu nen la nitu nen la nen la waaye na soo ma bëggee jaar sàkk ma siisu waaw waaw ma siisu soo banque rek ngay feebar loolu ñëpp xam nañ ah yàlla nañ yàlla musal ci banque mës ngaa gis ko sant banque hmm. musul am mës ngaa gis ko sant kande kandemoon la ko sant suur mi ngi ni la famille suur mi ngi nii hmm. barke borom Tuubaa ñu sant suur am na waaye mosoo gis ko sant xiif mosoo gis ko sant ñàkk mosoo gis ko sant bàkk da ngaa dox <laughs> merci merci ayca papa mm. suñu premier thème année ci moom la jóge pour juste dire aux téléspectateurs que ñun sax tey xamuñu leen billaahi barke borom Tuubaa xamuñu ko ñoom ñëpp ñu toog kooku dama koy natt ndax nit ki su fekkente ne da ngay nekk ak moom bëgg ëllëg mu doon leneen loo xam ne day atteindre le plus haut palier da koy natt papa nag fi tànn thème bu neex de boo fi tànnee thème bu naqari koy changé. lu ma neex laay indi te li may indi kenn du ci mën a wax lenn ndax professionnalisme damaa bëgg foo dem suñ la invité soo ñëwee rek mën a waxtaan mën a participer. dëgg la bàyyi même thème bi sax libellé guñ ko Bakary Banoral dugalagu ko. Mhm. bindagu ko kon Bakary jëlal note actuellement su ko defee nga mën koo ki bind léegi mën koo dugal waaye régie jël leen note ndax thème bi kenn xamu ko. doonoo ne ñu ne ah ñu ne ami ñu ne ah ñu ne boulot et maraboutage deux points. famille ami boulot et maraboutage deux points. Mmh. le regard des autres def entre parenthèses ne gis-gis gis-gis laa indi tey ku nekk ak ni ngay gisee sa famille léeg-léeg coow na ci kur aw ay am ci. ñu taxaw nga dëng lool nekk ci biir kër gi lëmbee fu la neex nga dëgg sa tànk lu la neex nga def ba nga xëy benn bis sa bopp tourmenté ndax am na loo daan jël wala dara am ca wala am lu la arrivé walla nga laal yëfu jàmbur ñu ne doon koo liggéey. yàlla. loolu est-ce que liggéey la benn nit ci benn kër. daan ànd ak fukki moroomam ak juróom di jëfandikoo loo xam ne mbaa di def loo xam ne walla di dugg loo xam ne wala mu laal yëfu jàmbur yoo xam ne jeex na ci këru àdduna dootul noppee laal ci këru àdduna loolu bëti ko daan ne doon koo yàq te fekk nafsoom la topp le regard des autres est-ce que du ne moom moo ko teg boppam lan moo tax mu koy jiñ foofu di ko ko viré yomb na loolu ñu ne boulot bi mooy wàllu liggéey nekk ci biir liggéey bi dama dem ba mujj doyatul chef bi wala doyatul kilifa gi wala doyatul chef d'entreprise bi wala doyatul kenn ci hiérarchie bi ñu yëkkati ko rétrogradé ko wàccee ko dem indi keneen teg ko à sa place ñu ëlbati ko daal ne doon koo liggéey nañ jëli sëriñ ah lan moo tax ne woon manque de professionnalisme la dañ ko liggéey d'accord point d'accord dañ ko liggéey moom moo tax nu wàccee ko fa jëlee ko toxal ko lan moo tax indiwoo ci wet gi ne mën naa doon manque de professionnalisme manque de compétence lu tax waxoo ko ñu ëlbatiku daal di ne ami maanaam xarit gi ngeen dema dem ba muy ab sëy muy ab ànd muy xaaritoo ba ngeen dema dem ba mujj ak na ngeen meloon ni mu mel neex ba bëgg a dee nga xam ne ñaari kii béjjën ngeen ci bopp foo seen benn ba seen moroom ma ngeen dem ba mujj ngeen làng te dootu leen laale waxatu leen dootu la dénk secret dootu la wax dara suy dem dootu la tàggu dootul ànd ak yow dootul jëfak yow dootul def ak yow nu ne sëriñ moo dox ci diggante bi wala fumiste ko yàq wala ngi te ko yàq lan moo tax ngay wax loolu soo indee ne sëriñ moom moo ko def wala loxo moo ko def kay indi ci rek un mauvais comportement waaw mauvais dina ko indi su fi ngi ànd ak diw ñu ko yedd naan ko kii jikkoom ji ni mu mel nga gis moom it muy def lu ni mel di nga dem a dem ba mujj soo ko bàyyiwul doon day aligné ak moom di moi ton ami je te dis foofu nanu jëm tey ñu ne nag le regard des autres ngit ku nekk ak gis-gisam def entre parenthèses def gis-gis allez Bakary Banora famille ami boulot et maraboutage deux points famille ami boulot et maraboutage deux points le regard des autres def entre parenthèses ne gis-gis nan ngeen koy gisee foofu nag nekk. tey loolu nga bëgg a loolu laa bëgg ñu waxtaanee ko. ayca waaw donc loolu mooy thème bi nga xam ne euh, papa daf koo tëral pour ñu waxtaanee ko tey moom mooy suñu bàyyi lu mu wax dañu koy def duñ ko teggi donc dañ koy waxtaanee nee na famille ami boulot et maraboutage mu nekk ci société bi euh, euh, loo xam ne Sénégal moom le regard des autres amaana daf ñoo amal solo lool wax dëgg yàlla am na lépp looy def rek yaa ngi ciy soor sa morom. Mm-hmm. parce que dañu nekk ci dëkk culture. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu est-ce que gën na ci ñun. est que gënul ci ñun laataa ñuy laal maraboutage bi. est-ce que des fois résolution yi ngay jël. solution yi ngay jël wala lenn li ngay adopté pour sa vie. est-ce que le regard des autres wala l'avis des autres peut compter. le regard des autres. wallaay xamul loolu. mën na compter. wallaay donc ci loolu la ñuy la ñuy taxaw laataa ñuy ñëw ci maraboutage yi. parce que des fois ngay sëy. ba sëy ba metti nga bëgg tas nga ni ah su ma tasee nag lan la lan la lan la sama tànta di wax lan la sama dëkkandoo di wax lan la sama diw di wax alors que yow sa bonheur mm-hmm. primé woo ko mm-hmm. jëloo ko teg ko ci kanam mm-hmm. ngay jàng di jàng ba am bag sa papa bëgg lii sa yaay bëgg lii nga am sa bëgg-bëgg nga bàyyi sa bëgg-bëgg jël sa bëgg-bëgg jël bëgg-bëggu keneen parce que moom loolu la bëgg nga suivre parce que yaa ngi xalaat lu muy xalaat ci yow yooyu yëpp ay point la loolu poids la waaw bu nga xam ne société bi daf koy exercer ci ñëpp donc Sophie ñu bàyyi la euh, yow itam nga joxe sa introduction par rapport ak thème bi nga xam ne papa moo ko tànn tey